waaw ci gannaaw euh, ñu ñëw fii euh, fii ci Mbacké euh, ñu ngi commencé d'abord par ziar nuyu suñu kilifa suñu xalif général de mourides di ko nuyu ci nuyu yu gën a tedd yi di ci di boole ci nuyu boobu nag bépp kilifa diina bu nekk ci diwaan bi bi nekk ci ci ci Touba bu nekk ci Mbacké bi nekk vraiment ci zone bi yëpp di wax rek ne connexion connect euh, Sénégal Connect dafa nekk procédure boo xamante ne dañ ko commencé événement bu am solo la boo xamante ne mi ngi am grand théâtre fii ak euh, fii ak le 16 le 16 mai présidé par son excellence le président Macky euh, ku ne Mbacké ku ne Touba xam ne xam ne ne zone la boo xamante ne li fi am am ci ay xew-xew diina dafa bari macha allah mu tax nag. Euh, dinañ gën a soxla toujours une bonne connectivité dinañ gën a soxla toujours connexion bu am bu am bu bu bëri parce que fu nit nekk fu taalibe nekk ci àdduna bëgg na di xam lépp luy xew fii en temps réel te loolu li waral loolu nag mooy li koy li koy gën a yombal nag mooy ñu am fi connexion bu doy ci biir ci biir Touba mais surtout aussi ci biir village yu bëri bëri bëri yi nekk ci ci ci département bi ak même ci région de Diourbel bi yëpp. donc c'est très important parce que foofu yëpp foo dem dëkk boo dem di ko fekk ab sëriñ bu fa nekk di di jàngal jàngal jàngal jàngal diine jàngal askan bi diine donc ñoom ñoom tamit am nañ possibilité war nañ am aussi connexion bu doy incha allah euh, selon les règles du président Macky Sall teg nañ ci góorgóorlu bu baax pour fépp fu war a mën a am ñu def ko fa. soo fi ñëwee nag en tant que ministre du numérique damay euh, damay wax ci euh, ni ñuy utiliser tey ji réseaux sociaux yi. parce que temps yëpp gis nañu Sénégal euh, ñu bëri en tout cas beneen tendance amoon am na fi amoon na fi ay fan yi yoo xamante ne nit ñi am koo créé daañu tëj sa kër ci benn mur tëj ci benn benn néeg jël say def sa ay vidéo wala wala ay image di wax lu la neex ci ñi nga xamante ne ñun suñu ay kilifa diina ñun amuñu keneen amuñ ñeneen ñu suñu suñu suñu kilifa diina yi ñoom lañ am ñoom it ñoom ñoo tax ñu ñuy ñu ñuy woowee ñun ay sénégalais parce que dañu am suñu valeur am suñu ay culture am suñu ay ay jikko am am ñu ñu ñu yaree ñun sénégalais yi donc kenn suñu musul xalaat ne bés dina jot ba benn doomu Sénégal juddoo Sénégal yaroo Sénégal màggee Sénégal xam Sénégal dégg wolof di jël vidéo di ci wax wax yu teggini yu jëm ci kilifa diine yi loolu moom vraiment en tant que ministre de la communication du digital maa ngi koy ñaawlu bu baax a baax te il est il est que ce soit clair état Sénégal dootu ko nangu que nit te gis néegam lu neex wax. lu neex partagé te doo ci def dara du lu baax lu dul rek jéem a diingat jéem a euh, yàq ñi nga xamante ne tey jii ñoom kenn mun leen yàq d'ailleurs kenn mun leen yàq parce que fii dañ ko defar dëkk bi Sëñ ko tabax Tuubaa dañ ko tabax fa am ko fi jaar def lu rëy am ci lu ndam bu rëy ma man ndam boo xamante ne amul benn sénégalais tey jii bu mën a xëy tey jii bëgg yàq image boobu mënul nekk ku ko bëgg yàq tamit sa bopp donc sa bopp doon nga yàq bi am solo mooy ñun fu suñu xam-xam toll ak fu suñ doole toll dañ ci góorgóorlu suñu gisee koo xam ne dafa dafa jóg pour yàq image yu suñu kilifa diine yi nekk fii si biir Touba ñu dinañ jóg wan lu ko raw pour wan la ñun on fera tout en tant que ndaw comme comme ñoom que pour sauvegarder euh, fii les valeurs yi nga xamante ne moom lañ suñ Touba bàyyil fii loolu du ay caaxaan loolu loolu loolu du ay caaxaan dafa nekk loo xamante ne dañ ko dañ war a jàpp bu baax a baax gëstu si bu baax a baax fii réseaux sociaux yi dafa war a dimbali sénégal yi ñu gën a xam ki sëñ Touba ñu gën a xam kan mooy suñu suñu kilifa diine yi ñu yor ñu gën leen xam xam seen parcours seen histoire seen jafe-jafe li tubaab bi bind est que am na wala amul est que amul beneen histoire boo xam ne bokk na bu ñu tubaab bi bàyyil fii loolu loolu fa la xaaree ndaw yi ñu gën a gëstu gën a gëstu suñu diine gën a gëstu suñu histoire patrimoine euh, religieux religieux du Sénégal ak suñu patrimoine historique Sénégal foofu laay xaaree ñuy utiliser réseaux sociaux yi mais pas quand même di utiliser réseaux yi pour di yàq deru nit yàq nit wala yàq sa réew